salaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communique bi bàyyeekoo ci ministère de la santé de l'action sociale tey bésu alarba fukki fan ak ñaar ci weeru août bi ñu nekk ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waajalim ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñaar ka contact mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxase woon ak ñi nga xam ne dañ ko yore am nañ ci téeméer ak fukk ak juróom li ñu tuddee ka communautaire mooy ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Ziguinchor dëkk yi may waaja lim nii la tëdde ci gox yooyu Ziguinchor am na ci fukk ak ñaar Saint-Louis am na ci fukk ak ñaar Thiès am ci fukk Mbao am juróom-benn Kër Massar juróom Almadi ñett ñeent Almadi ñeent la am Géejawaay ñeent Liberté 6 ñeent Mariste am na ñeent Parcelles Assainies ñett Cité Djily Mbaye ñett Ngor am ci ñett HLM 5 ñett Richard Toll ñett Rufisque ñett Mékhé ñett Kolda am ci ñett Cité Port ñett West Foire ñaar Cité Port ñaar la West Foire ñaar Yoff ñaar Dakar Plateau ñaar Médina ñaar Popenguine ñaar Kédougou ñaar Mbour ñaar Cambérène benn Castor benn Derklé benn Liberté 1 benn Mermoz benn Nord Foire benn la Ouakam benn Pikine benn Bounkiling benn Khombol benn Fatick benn Matam benn Saraya benn ak Sédhiou benn juróom-ñaar fukk ak ñeent entré woon hôpital wér nañu bés ni ci tey dinañ génn bu ci àllaa ndee juróom fukk ak ñaar ñu ngi ci réanimation ñeent malaat ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak benn ci weeru ut biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal woññi na fukki junni ak benn ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar cas positif ci ñooñu positif juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ si ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak benn si hôpital yi wala si loxo docteur yi ministère la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla jéggal leen te yóbbu leen na mu ngi ñaanal ñi des ci hôpital yi wala ci loxo docteur yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak